tam dinañ ko am ci kanam El Hadj euh, ñu tàggu la dégg nga li ñu wax ci coronavirus danga la tàmmoon di la setaan ci miroir Covid ginnaaw bi ma la nuyuwaatee encore une fois nga naan États-Unis euh, ñaari combat la am benn bi di coronavirus ak euh, li nga xam ne moom mooy injustice fan ngeen tolloon ci xeex coronavirus rapidement ak rapport am ak Trump. waaw moom laa doon wax loolu dama ko yàgg wax ne Donald Trump ak i ñoñoom ñu mel ne ñoom ci ci àddina bi. bu dee ñàkk nañ dara. Euh, hmm. Covid 19 bi moo leen ko teg maanaam euh, euh, élection yi boo ko seetloo tamit bu dee démocrate yi gagné nañ ko tamit nañ xam ne gëm bi ñu gëm pare xeex pour Covid 19 bi jógee bi moo leen koy may. Hmm. donc mais Donald Trump ñu jàpp ne dafa mus gëm ne Covid 19 bi amul mais ñu jàpp ci dara. Hmm. bi mu demee ba xam ne Covid 19 bi démocrate yi daf leen arrange ci benn côté. lu luñ ci gis ah jàpp nañu daal feebar na bi mu feebaree tamit euh, mooy li ma doon wax sànq rek ci démocrate yi wóor mën a bu doon moom la du ko def euh, euh, il a tout fait en tout cas hospitalisé nañ ko mhm. les démocrates Joe Biden le candidat Obama ñëpp oo ko di ko mastowu di seet nu mu def mais bi mu génnee wane na gars yi ne ne feebar bi du dara tout simplement dire daal parti ak ñiy déglu euh, euh, TFM. Mm. miroir du Sénégal que ne Donald Trump bu dee daanu na xam ne Covid bi moo ko daanee. très bien. les démocrates bu ñu gagné nañu xam ne tamit Covid moo leen ko may. xeex euh, bien très bien El Hadj Ndao ñu sant la bu baax gërëm la di leen euh, bàyyi xel bu baax a baax communauté sénégalaise boobu nekk ca États-Unis rawatina. Euh, état bu New York foofu ca 116. El Hadj Ndao ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci jàppandal geeg collaboration bi gis neen ko ni mu tontoo sànq laaj Mamadou Fall ci page internationale dañuy wéyal info du matin léegi léegi spécial dossier.